Euh, ñu ci sant bu baax ci tawféex geeg lépp rek euh, di soññ mbokki taalibe yëpp rek ñu gën a jaajuwaat bu baax te waaj li nga xamante ni mooy deuxième phase bi incha allahu rabbi di ñaan sëriñ bi defal ñu ñu dee ci tawféex euh, ba gën ko jekk bu baax a baax a baax a ci barkeb sëriñ Saliou ñoo ngi santaat mbokki Nuurul Muniiru yëpp rek di tuubaat bu baax ci kàddu yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe waa Daara Nuuru Munirun euh, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax xam naa bu ngeen gisee sunu jotaay bi euh, mooy li fi baaxoo am ci at yi weesu daanaka fi ne fukki at ak juróom yi mi ngi bëgg a mat wala mu jege ko ci at mu jot Nuuru Munirun ni muy waajal màggalu sëriñ Touba gi nga xam ne mooy 18 safar waaye di ko waajal nag ci wàll gi nga xam ne moom la sëriñ bi taw féexale woon nu féetewoo ko muy ci daaraam yi daaray boppam yi euh, ren nag. ku ne xam na ne yéex nañ cee jublu lool ndax waxtu wi daana fekk nu jind ko daanaka lu ëpp weer waaye xew-xew yi jamono jii nga xam ne moo am tax na bañ bañ bañ bañ euh, yéex cee jublu waaye nag dara su ci lu dul yéex a jublu gi rek waaye mébét mi ak bëgg gi ak jublu gi lépp sunu borom matal na ko dellusiwaat nañ fii ci Daara Jolof fàggu fi ñaar fukki nag ak ñaar yoo xam ne niñ ko baaxoo waxee rek fii lay jóge jëm xel kom fa daaree Serigne Saliou ya te lépp it fa lay fa la jëm fa lay des kon nag noo ngi sant yàlla bu baax a baax ci tawféex ju màgg ji nga xam ne xamuñu ab dayoom bay xam cant ga ca war waaye nag sëriñ bi moom li nu li nu jëflanteeg moom mooy jëfunu ci moom luñ ci bëgg dara lu dul ne lépp lu yàlla gërëm ci sunuy jëf na ko delloo sëñ Saliou bi nga xam ne moom rek moo ko yooyoo loolu di njariñu jëf yi ñuy jëmee ci moom. lu ko yàlla nangu nangu nangu nangu nangu su ko ko yëtee xam nañ ne taxut mu mat asaka yi cant gi ne war suñu diggante ak moom sunu mbokk yi nga xam ne lu fi am seen i jëf la muy nooru mu niirun ak fuñ mën a nekk ci adduna bi ñaar fukki nag yi ak ñaar nga xam ne fàggu nañ ko mu toll ci limub 4 millions euh, yu teg lépp seen i jëf la waaye nag niñ ko baaxoo waxee nag yi yóbbuwuñ ko xel koom rek sànni leen ko ne leen mi ngi noonu bàyyi luñ leen fa am matt muñ ko lakke dañ ko war togg ba mu mel na mu war a mel mu ànd ak ay berne yoo xam ne nii la gën a gën lañ ca sàkku kon nag na xam ne premier tranche bi nga xam ne moo jënd nag yi lépp mat na ñu waajalaat nag deuxième tranche bi nga xam ne moo jëm ci ndugg mi te it ñu bàyyi xel ne la ñuy dugal gàmm la ñuy dugal màggal moom lañ fa yéenee dugal gàmmo berne yi ñuy def ci ci euh, màggal gi moom lañ fas yéenee def gàmmo te gàmmoog ren gii kat danoo bëgg mu mel ne gàmm goo xam ne nii mosu fee am. ci ak jag ak matale ci daara yëpp rawatina nag daaru alim ji nga xam ne moom mooy sunu lépp nga xam ne man baxul xayraati fii naa mooy daarul alim dafay mel ne yiwi yàlla yëpp ba mu ñu ko bëggee jox danañu bët baa nga daaru alim dem leen fa ma bëtal leen ko foofee nag dañ faa bëgg yeesalaat ren gàmmu ko yeesalin woo xam ne nii lépp loo xam ne daan nañ ko fa jëf ci at yu njëkk ya bëgg nañ ren mu dellu siwaat loolee nag mëbét kese munu ko munu koo matal faaw nu jaayantewaat ak sëriñ bi ba li fi daje woon mën mën cee jënd nag yi ñu ñu dajalewaat lu ëpp loolu ngir mën koo def ci gàmmu gi ak màggal gi kon ci kàddu yooyu rek lañ leen doon wax bu ko defee sëñ eh, Ibrahima mi nga xam ne moo yoroon waaru màggal gi mi ngi nii Seydina Bakar mi nga xam ne mooy jëwriñu Amérique nooru mu nirun mi ngi fi ak sunu mbokk jëwriñ yi nga xam ne ñooy ñooy jëwriñu Serigne Saliou yi nga xam ne buñ masaana dem Daaru xel koom ñoom lañ fay fekk mel ne Serigne Ousseynou Signane mii xàmmee ngeen ko Serigne Chouaïbou bu xollu ñoom bu doon daara ji dañ koy utal bàyyi ñooy bàyyi daara ji ñooy bàyyi nooru mu nirun ndax ba ñuy xeeñcu sëriñ bi nga xam ne xamaguñ daara ci sëriñ bi xamaguñ sax lu mu bëgg ci ñoom la liggéey boobee jaare ñu ñuy teete di ñu dalal di ñu toppatoo bañ mën a am tawféex sëriñ bi sëriñ bi de xam ngeen ne nun nooru mu nirun ndigal lim ñu njëkk a jox ngir ñu defal ko ko muy aw waañ lañu njëkk sant fa daaru alim waañ wooyee bu ma fàttalikoo mi ngi bàyyi ko ci làmmeñu sëñ Ousseynou Siñaan mi ngir xam ne ñii ñu àndalaat ab soññi bu réerée lañ te it barke lañ ci sunu liggéey bi ñaan yàlla fayal nu leen euh, te te seen yéene ci sëriñ bi sunu borom motli ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di santati sëriñ saalu Mbacke bu baax ci tawféex yi nga xam ne defal nañu ko ci jamono jii ñu toll euh, suñuy kàddu nag xëy na day jëm rek ci sonje li jëm ci deuxième tranche bi bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a guddal euh, ni ko jëwriñ waxee Euh, fàggu na lu toll ci ñaar fukki nag ak ñaar muy 22 nag kon ne ñëpp xam ni premier tranche yi moom mat na buukale nañ ko nag yi ñu fàggu jënd ko ñu ngi nii xel kom la ñu jëm du ñu fa génnaat kon nañu xam ni dese nañu lu gën a rëy ci liggéey bi te moo jëm ci li nga xam ne mooy ndugg wi yi nga xam ne moom la ñuy jënd di ko séddale ci daare yëpp nga xam ne dañ koy def lu ci ëpp 16 safar dañ koy def mu jëm ci daare yi kon loolu ñu ngi ciy sonje loolu moo ci jiitu daaw comme ni ñu ko xamee yokkoon nañ ci ndugg yi ay suukar euh, ak i café ren dinañ ci yokkaat leneen ak leneen ak leneen lu jëm lu mel ci ay meew aki i ataay ak yëpp ndugg yi gën a ala doome ndax loolu moo gën te moo leen gënal kon ñu ngi sonjaat ñëpp ñu defaat ci Pastef bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax yëngu ci bu baax a baax ngir mën a matale loolu leneen li ci des muy gàmmu gi loolu moom yàgg nañ ko wax depuis ba ñuy sonjee ci yëkk yi ñu ngi koy sonj looloo tax sax daanaka ñu dolli ci nag yi jënd ci 22 ndax boo xoolee lu ci ëpp ay 18 lañ daan jënd ak 19 waaye li ñu bëgg te mbébét ko mooy daara june ñu jox la nagu gàmmu ak nagu màggal dara bañ faa génn lu ñu mbébét it mooy ndugg yi nañ ko daan defee ñu yeesalaat ko ci daara yëpp rawatina daara alim ba nga xam ne suñu lépp fa la bàyyeekoo ñu yeesalaat fa gàmm gi bu baax baax a baax ndax faw ñu xam ne nuurul muniru moom gàmm suñu mbir la Serigne Saliou moom daf ñoo jagleel gàmm daf ñu ko jagleel ndax li tax ma ne daf ñu ko jagleel jagleel li ci ëpp daara ji li ñu gis sëriñ bi yëpp ginnaaw gàmmu lay doon ñun ñi ñëpp sunu yees loog wax yi bëri yi mu wax ci daara ji yëpp ginnaaw gàmmu la ko waxee daara ji it yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko tuddee muy nuurul mu niiru loolu daf ñuy daf ñuy daf ñuy wax ni wax fa dëgg yàlla am nañ ci gàmmu cër ndax moom ci boppam moo ñu wax ni jóge sow ba xel kom fa la màggal mbir mën a yem loolu gàmmu la ko waxoon kon nañu xam ni gàmmu dafa bokk ci liggéey bi kon soññ bi ñu ngi koy jëmale ci ñëpp ñu ñu ñu yëngatuwaat bu baax a baax te xam ni euh, fii ñu nekk fii rek lañu ñu sëriñ bi joxoñoon muy ni moom jëflu rek la xam kon nañu xam ni li ñuy may lu ñu bëgg mooy jëf rek te di ko jëf ci jaayante daara ji moom daanaka loolu tàmm nañ ko. màggal gi it ak gàmmu gi yaakaar naa ne euh, àdduna sépp xam nañ lii sunu cër la dañ nu ko féetale euh, mu fekk si waxi sëriñ Saliou Mbacke bi nga xam ne. Euh, mboolem àdduna sépp dégg neen ko te ci ñun ñi la ko jaarale muy daara ji waxoon na ne li ma gën a bëgg ku ma ci dimbali mooy sama daara yi ndax la ma fa war su ko ñëpp bàyyee mu jóg defal ko sama bopp kon képp ku ma ci wutu dimbali na ma kon sañ neen wax ne yéen waa góor waa nuru muniru wuutooti ngeen Serigne Saliou Mbacké ci jëf ji màggal gi it euh, moo euh, ci daara yi nga xam ne moom waxoon na ne jëf gi mu fee jëf di ko fa yóbbee moom loolu la jàppee jëfam ci màggal gi kon tey sunu borom sunu taw féexalee ba tey ñun ñuy barkeelu ci jëfi Serigne Saliou Mbacke googu moom muy liggéeyal Serigne Touba yaakaar naa ne eh, ñaari cër sax da ciy mujj dal di daje kon li ci des rek mooy fas yi ñu làbbali ko mooy waajalaat yeneen tranche yi ndax mm, nag yi rek eh, mënuñoo togg seen bopp moo taxoon ñu tegoon plan yooyu njëkk war a fàggu eh, gétt gi waajalit condiment yi muy ndugg yi ciy topp ak ba ci gàmm gi. lii nekk na xew-xew woo xamante ne daara ji dañ koo miin kenn ku nekk ci ñoom soo sañoon da nga teew teewaaleel ko mboolem donga tarbiya yi ndaxte ñu nag ñoom ñoo ànd sëriñ bi ci ñoom la ñu liggéey law kon ñoo ngi santaat bu baax di ñaanal mboolem njabootu sëñ Saliou Mbacké gi maanaam ñu yàgg fi te ànd ak wér te ñu ngi leen di santit bu baax ci yaatal gi nga xam ne ñoom yaatal nañ ñu ko ndax lii yëpp ñuy def ñoom mënoon nañ ko defal seen bopp waaye xam nañ dafa war a yaa te ñun it dañoo war a jëriñu kon loolu moom fayut ñu sant leen ko ñoŋ leen ñoo ngi koy bàyyee xel saa su ne eh, di ciy sant bu baax di nuyu mboolem ñi nga xamante ne jëf neen mooy daar jëpp te di leen di jaajëfal kon ñu waajalaat incha allah jërëjëfati salaamaaleykum wa rahmatulah Amen